àllarba ñu doon amal conseil des ministres niki alarbadji, le ji lu jëm ci walum li di projet jëm si lu soxal walum événement yi fi amone mars 2021 ak juin 2023 dal dinañu ci addu gannaaw itam lu ñël walum révision jëm ci procès bu Karim Meïssa Wade buñu sukkandiko ci yéene kaay bi di le quotidien bi mu xëyee niki alarba ji ca bañuy wax lu jëm ci walum adopté ci assemblée nationale lu jëm ci projet de loi d'amnistie ci jamono jo xamné ñom force politique yi dafa melni ni wuñu ci Macky Sall mu ngi nekk di wër jamono ji ay alliés supplémentaire gannaaw rek ba nga xamé né faaw mu fexé am taxawaay deug ci assemblée ngir mëna fexé bo ba bi daldi mëna jall ci jamono parti démocratique sénégalais boo moytu nañ leen jàppale ci liko waral lu dossier bu Karim Meïssa Wade ak xolaat giñu ci nam muy modification bo xamné dina permettre ki di Macky Sall ngir mu daldi adopter loi bi gannaaw rek ba nga xamee am na ndimbalu di libéraux yi nga xamné lu ci vingt députés ci assemblée nationale ci jamono jo xamné Mamadou Lamine Diallo jàllo boo moytul itam ñu bëri ñu ngi jàppee ne dina ko jàppale ak lu mën a am daal nañu xam ne bu fekkente ne membre yu Benno Bokk Yaakaar kese la du ñoom ñooy mën a tax ba ñu daal di jàllale projet de loi bi nga xam ne réeroo bu bëri moo ci daal di am ndax bu ñu ko yaakaar ci opposition bi rawatina sax ñoom seen biir waa Benno Bokk Yaakaar ak réeroo gi nga xam ne am nañu ko naka noonu itam juróom-ñetti fukki député yi nga xam ne moom la ñu am ñoom Benno Bokk Yaakaar bu ñu ci wàññee ñaar mu di député bu fekkee ma ci boole ak réew mi Idrissa Seck naka noonu itam yeneen 24 député yu parti démocratique sénégalais ñooñee bu ñu ñëwee nangoo ànd ci mbir mi rek nañu jàppees ne loi bi dinañu ko daal di mën a adopté ca assemblée nationale ni ki tey président a am ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay partenaire politique am bu njëkk donte nag li ko desee ngir mu able ci nguur gi bëriwul mu di nag mbir yoo xam ne gannaaw lii di report élection présidentielle yi gën a merloo lii di bokkuñu bennoo bokk yaakaar bokkatuñu benn barab bi ñuy xoole ci jamono joo xam gis nañu ne ko jafe-jafe am na bokk na ci sax lu ñel wàllum li nga xam ne moom moo di législature bu mujj bi ci ndimbaluk ñi nga xam ne nag ñoo di libéraux yi mënees nañu jàpp ne lu mel waral lii di projet gouvernementaux yu bëri ñu ko approuvé ca assemblée nationale waaye bu doon du loolu dinañu gis ab blocage bu jéggi dayo bokk na ci sax ko di coalition Yewi Askan Wi ca assemblée nationale ci li nga xam ne moom élection législative législatives yu mujj dañu don njort lu jëm ci walum blocage waye nak menes nañu japp ne ak acte bu bi Macky Sall bu amé wa parti démocratique sénégalais moy dul rek dina Daldi mëna am la mu bëgg ci assemblée nationale gannaaw ba mu leen diggé lu jëm ci walum révision jëm ci procès bu Karim Meïssa Wade donté ci dialogue ba la ñëk question bobe daldi nañu ko awoon aborder gannaaw ba nga xamé ne sax lolé mo leen daldi di may ñu régler problème ou illégibilité wu qui di Khalifa Babacar Sall ak Karim Maïsawad. Wade gannaaw modification wu article L28 bu code électoral gannaaw ba ñu gisee nag parti démocratique sénégalais ak waa société civile commission politique bi yore wàllum dialogue national dafa daal di woon acte décision jëm rek ci réviser li nga xam ne procès bu ancien ministre ci jamonoy maître Abdoulaye Wade nekk ki nga xam ne jamono joojee Karim Meïssa Wade dénkoon nañu ko juróom ci ay portefeuille ministériel loolee juraloon ko coow gannaaw rek ba nga xamee ne la des ñu koy laaj ji moo ndax Macky li mu bëgg ci loi d'amnistie bi dina ko am ci jamono jo xam ne mënees nañu japp ne ay bëss rek moko dal di ngir mu ablé ci réewum Sénégal li ci kanam raw li bët moom Karim Meïssa Wade fi nak ci jamono bu ñuy fatali ministre d'État ministre des transports aériens de l'énergie et des infrastructures dañu ko daal di condamné bësuk ñaar fukki fan ak ñett ci wéruk mars atum 2015 ci juróom benni ati kaso yoo xam daf koy teud ñako condamné won modi wa cour de répression de l'enrichissement illicite mu di créé gannaaw itam bañu ko daal de amande maanaam daan ko ngal ci ndoddam lu toll ci cent trente huit milliards maanaam téeméeri milliards ak fanweer ak juróom-ñett yoo xam ne daf ko war a fay askanu Sénégal